waa yaa ngi waaj. waaw maa ngi waaj bu baax a baax a baax am naa combat ma ak Giro incha allah. dama jël sama micro dégg ko Giro Seras mu ne ma sama diggante ak Abou Ndiassé du combat. ah moom moo la dafa baax rek ko kooku tollaguñ si buñ si tollee dina xam combat la wala du combat. làmb ji loolu laajul wax Fallou. ñu gisee yow yaa Giro yow Giro Seras. amel nga Guiro amel nga say mbokk bor Guiro Seras amel na ay seen ñaari mbokk bor mais lamb jooju abu waaw lamb jooju sama lamb la si kàttanu yàlla incha allah rabi fii laay bëree dama koy duy si kàttanu yàlla borom bi defal ma ndam ma ñibbi. lamb ma fi noonu la demee nag non non non lamb fi ko gars yóbbu sax ah tollagul foofu tollagul lamb tension bi ñu ko foog non non waaw. maama mu ngi fi ñu ngi waaj xam waaw ñu ngi waaj bu baax le 5 février waaw pour ñëw borom bi dafal ko ndaw ci kaw double moteur combat bu ñu fonk la nag combat bu ñu fonk torop. làqatu woon nga dafa foo nekkoon. non maa ngi fii man làqatu ma làqatu. non làqatu woon. làqatu ma maa ngi fii toog. am na foo nekkoon foo nekkoon. ah woon Gambie di bëggee waa Gambie xam di bëggee ñëpp di bëggee Paate xam sama njaatige ay Aba ay Alu xam di bëggee Ibu Ara benn booy bu ma sonal Gambie moom xam ma fi yaakaar àndoo wala bokk xam nga di bëggee waa Salba ay doon jim xam nga jim boobu laa nekkoon ñibbi si naa maa ngi xool ndax am dinaa dellu wala dellu moom lamb ji laajee dellu dam pare bu laajul dellu maa ngi fii. ñoo indee mu ñëw jàpp daan ñu ñibisi si si kàttanu